wax ma la moo tax ànd bi ànd ma Sidy Diop. ngeen bàyyante rek mu ñaaw. voilà xam tey dama am nu ma tijjee su ma wax. Mhm. te que parfois nit ñi dañuy dem ba yaakaar ni mbirum noonante la wala mbirum bañante parce que fii dara ñaawul nit ñi ñooy ñaawal ak nit yi ma ko sañ a wax. Mhm. man ci sama niveau dara ñaawul parce que man awma xol bu ñuul mhm. alors te ci sama cursus bi ma nekkoon di wax nii. Mhm. ku dégg ni ma waxee nga xam ne ni ñaawul mais gëm-gëm dafa am. Mhm. te man am naa ko te loolu dama ko hérité ci sama waajur yi. Mhm. mooy koy gëmal lii. soo gëmee weex weex la soo gëmee ñuul ñuul la. yàlla dogal na ne man loolu laa gëm. ànd dafay am taaxalikoo. te taaxalikoo bi quel que soit taaxalikoo bi tey man wala Sidi rek ñoo la mën a wax luñ jote. ah tey encore une fois. loolu du sujet bi mais yéen ñaar seen ànd dafa dafa neexoon ah. du sama gel ci ñëw sax bu ma wala la. Mhm. waaw seen ànd dafa neexoon parce que euh, pourquoi dafa neex. moom dafa ñëw am lu mu def ci euh, mhm. Sidi Diop. parce que mën nañu wax ni. Mhm. Euh, Sidi Diop tournée yi mu njëkk a def ci ca bitim réew. muy Europe muy fu mu mënti doon ah. moom mii la ci doon na dool donc bëgg noonu xam exactement pourquoi yéene boobu noonu yëpp nga amoon ci moom mu jékki-jékki rek tas quoi. waaw parce que yàlla dafay bind doomu aadama jékki-jékki. muy dund di raam dox taxaw màgg après yàlla rey ko dafay am yaakaar day tas su ma sañoon du dee parce que sama waajur bi ci janvier bii la génnoon àdduna yàlla nag yàlla xare àjjana su ma sañoon du dem mais que dem na ànd noonu la non xam ma mën a la ma mën a daa ñaaw dëgg la sax du sujet bi mais euh, foo ñu cof ci tuuti parce que la ma mën daa ñaaw mooy tey ba nga takkale aussi di jóg nga de maanaam lépp lu defoon ci son da nga supprimer ci YouTube bi. voilà man bu nekkoon rafet na nga ko fay da ah, ah, tey domaine yooyu. li tax duma ma ci wax. du ma ci bëgg waxati. parce que tant yaa ngi évoqué. benn euh, sujet ci domaine boobu. dafay loolu mooy ñaawal lii mooy ñaawal. Mhm. parce que li tax lii mooy ñaawal. mooy que ñuy wax ñëpp mënuñu wax luñ maîtriser. Mhm. te mënoo tontu ñëpp. wax dëgg yàlla. Mhm. man tey je pense que mën naa jëriñ lu gën a bëri lii ci musique lu dul que ñuy ñuy téye sante mm-hmm. man mën naa jëriñ lu ëpp lii ci musique mm-hmm. dëgg-dëgg. je rappelle euh, que jour bi mooy premier jour bi nga taxawee ni démissionné nga ak Sidi Diop. est-ce que wax bi amoon na lu ñaaw. déedéet. voilà léegi su ko sénégalais. bàyyi taxaw rek ni man tey laa ko décidé. te wax bu rafet la. te amul lu ñaaw. Mm-hmm. mais que su ko ñi ko waroon bàyyi nii bàyyi woon nii rek. su fekkee laay am nga parti boobu juste rek ñu déglu ko. très rapidement ñu duñu xalaat ne da ñu xalaat ne dafay ñaaw. te wax dëgg yàlla. Mhm. ngeen baal ma. Mhm. mais que lii nii mën na di ko ñëgloo. Mhm, moom mii di setaan. man mën na ma ñëgloo man mii di toog ci plateau bi. parce que doomu aadama laa. te mën nañ évoquer benn sujet boo xam ne ni que. Euh, dina ma laal. ma wax lu ma warta wax. wala moom mu toog këram di ma setaan. sentir ni que waratuma def lii. d'accord man am naa plus de maturité. parce que tey suñu juumul. daw na un an. bi ma bàyyi ak léegi. moom moom ngi ci yoonam man maa ngi sama yoon tey nit ñi ñoo ñu dóorante rek. Mm-hmm. wax dëgg yàlla dóorante la rek. Mm-hmm. mais que wallaahi azim mm-hmm. man gëj naa gis Sidy te maa ngi ko yéene jàmm. est-ce que xalaat nga ni seen diggante yéen ñaar fii la waroon yam. non man. léegi nañu xool extrait bi très rapidement ñu dellu si waat. tey mooy sama dernière prestation ak Sidy parce que li tax mooy sama dernière prestation man Baye Zane man maa décidé arrêté. nekk manager Sidi Diop. lu léegi jour bi mooy jour bi nga euh, taxawee di démissionner ci Sidi Diop. jour bi waaw jour bi laa doon démissionner parce que mënoon ma xaar ba egg kër ga. Mhm. parce que euh, lii je pense que am na un an. Mhm. te que nga nekkoon ci moo bari. waaw te ci parce que ay li ngay dégg. waaw ci un an yi. Mhm. màgg naa ci. comprendre naa ci leneen lu ma comprendre woon santeewaat naa ko Sidi ci compréhension bi ma amaat nii ak plus de maturité bi ma amaat mhm. tey dama lay wax benn misaal pour que ñëpp dal mooy que artiste bi ma yoroon muy Sidi nekk sama rakk ma gëmoon ko di ko défendre ci lu lépp regretté wu ma loolu tey yëkkati naa ko jébbal ko ay yeneen moo yëkkatiwu moo sax quoi dem na ci ay yeneen nit yeneen nit yooyu artiste bi ñu yoroon mu ci samay loxo te ku ci nekk rek su toogee maanaam sama artiste tey ma njaay su toogee ci man mu wax ci Jules Teranga lu ñaaw damay xam ne su ma bàyyee day demaat ci keneen waxaat ko ci lu ñaaw Sidi su toogee ci Jules mu wax ma lu ñaaw su demaatee feneen day wax loolu te que gis nga artistes yi comme mercato rek quoi mercato la su saison bi tijjee dañuy jaay tey ki fi jógee nii. Mhm. promoteur la. Mhm. label la yor. Mhm. dafa def appel d'offre am appel d'offre bi dina am ay artistes yu mu intéressé ñu dem saisir opportunité boobu. léegi fi ñu jógee lan la ñuy wax foofu te ndeysaan. man xam naa ne ni Jules Teranga. sonn na ci Mandiaye. def na ci xaalis bu bëri. dugg na fu nekk am na. lijjanti na fu nekk. te tey képp ko defee ci merci te tey ku nekk ci milieu bi. billaahi wallaahi wa taala majorité nit yi may wax pratiquement promoteur amatul fii manager bi day dugg fu nekk lay leb. billaahi wallaahi. day leb fu nekk def pour réussite artiste bi ak réussite am moom mais que suñ tàqalikoo bu kenn wax lu kenn lu ñaaw. surtout parce que musique bi loolu moo tax nit yu baax yi di ci bëgg génn. Mm-hmm. te loolu lu ñuy éviter la. Mhm. nañ éviter nit ñi diñ dóorante. Mhm. te d'ailleurs maa ngi nuyu Matar. Mhm. au passage parce que li tax ma koy nuyu. yee mooy que moom respecté na ma. man respecté naa ko. te moom quel que soit alpha moom moo def investissement am ci business am di entertainment benn affaire. alors tey dafay dafay dafay baax yenn saay ñu def yenn points yi parce que li tax ñuy def yenn point yi mooy que. fi Matar jaar ak yenn artistes yow jaar fa ak ñoom. ma certo dëgg la. tey ñi Matar yor pratiquement ñëpp maa leen yoroon man wax man yow da doon gis suñu yi. man dañ doon may dugal statut yi. di ma wax lu baax. di ma wax tey suñ ma waxee lu bon. non mais frère gars mais loolu lan la dafa am benn problème bu nekk ci suuf voilà parce que. Euh, c'est vrai que dama wax ne que man xale yi ma ëmb. ginnaaw seeni waajur. man maa leen ilif ci domaine bii ñu nekk xale yi ma ëmb. Matar xale yi mu ëmb moo leen ilif mhm. keneen ak keneen moom moo leen ilif mhm. alors man il faut que ma jubal mhm. ak defar sama taxawaay de telle sorte que xale yi nekk sama ginnaaw duñ dëngal parce que musique divertissement la te ku wax divertissement wax ree wax kaf su duggee ci xeex xuloo te sante xam nga loolu point boobu noonu su lu ñëga ko eh. te dafa am solo ñu wax musique foo kaf ree la Euh, kenn ku ci nekk génn li nekk ci xolam ci mbégte partagé ko ensemble ak sa morom mais tey ci seen côté ci calan yi dafa bari xuloo yi kii di tapas ki ñii di kar diw euh, déggoon nañu fii ci ginnaaw di Diop dafa karoon euh, Mandiaye Seck ñii génne ay paaka c'est-à-dire comprendre nu ko exactement lan moo indi problème yooyu je pense que yow en tant que ménageur naa loolu yëpp war nga ko mën a résoudre benn yoon mu jeex man man je pense que créer régler régler situation bi quoi je que mag yi ñoo war a waxtaan ak ndaw yi. parce que ndaw fugg lay demee. Mhm. man amoon na jamono yoo xam ni euh, waay laa dëkk juddoo fa màggee fa. Mhm. fu jàmm yenduwul bu mu fanaan. Mhm. te que man ci samay expression dafa ci bokk ni que man. dëj moo a gënal ngénte. waaw ah, loolu moom dañ lay nga koy wax chaque jour. ko ko ko loolu. wallaay xam benn expression la boo xam ne ni mm. que. moom man soo ma mënaasee rek ci dara dama lay wax ne la menace boobu foog mu daal. loolu xam nga foogu de jeunesse la mhm. maturité bi ma am mhm. permettre tuma dëj di ma gënal génte mhm, parce que tey li ngay wax tey mën na valable tey mais du valable suba selon données yi données yi su changé alors dootul valable ati d' accord mais lan moo indi problème boobu ba tey yow en tant que manager. ba pare nga am maturité boobu problème boobu nga seetaan muy am ci seen biir. alors ñun bokkuñu bokkuñu culture parce que man séeréer la mhm. yow mën na am nga nekk tukulóor. olof la voilà kii njaago voilà sama sa yow man maay sa buur sa buur la waaw léegi culture yi duñ bokk mhm. mais que ñun am nañ benn point commun ñun ñëpp mhm. muy que sentiment sentiment quoi ñun ñëpp ñun am nañ point commun boobu alors sentiment yi moo ñu war a permettre ñun ñii xam ni ñu ilif yenn ñi si sunu groupe yi. Mhm. ñu temporiser. musique mën nañ clashante mën nañ waxante ci musique. mais bi loolu amee yow en tant ak sa maturité bi nga wax ñu nekk ci yow jug nga dem ci beneen clan bi maanaam dem ci fu mel ni euh, Subatel musique woo ku mel ni Matar Diop Subatel moom ak maturité bi nekk ci moom macha allah woo ku mel ni Jules ngeen leen toog leen ñu waxtaan. parce que lii c'est pas normal gis nañu lii am na gis nañu lii am na parce que problème bi yëpp ci entre deux clans yooyu la ñu ko dégg. dëgg-dëgg def ma ko. Euh, mais nag ñoom def nañ ko. parce que ju waaw Jules woo na ma dëgg-dëgg ma wax bu rafet. Mhm. na ma nañ bàyyi lépp mu sedd. Mhm. Euh, euh, kii avant plainte yi di dema ah. mhm. bi plainte amee ba pare. wax nañ tamit. mu wax ci wax ju rafet ñoom. am nañ maturité boobu ñëw envers man. lu tax maturité boobu jiituwul ci yow. jiituwul ci man parce que parfois nga ne tekk tekk mën na la woon yoon. parce que mënu woon ma xaw woon ma nan lañ may accueillir. boo fa demoon. non su ma leen woowoon. parce que téléphone la quoi. Mhm. parce que Jules ñoo dëkk Géejawaay. Mhm. ku baax la. Mhm. Matar mës na ma dimbali. ci bi may tëgg stade Amadou Bari muy ko ndimbal bi moo nekkoon. ñëw assisté ma. Mhm. ni ñu doon tegee chaîne bi assisté ma. Mhm. assisté na ma te loolu prêté mais mais forte la quoi. Mhm. te loolu fàtte ma ko. alors kon ñoom maturité boobu ñu amoon. ba def ko ci ñaari xale yu doon xeex. man salué naa ko. mais que loolu. nañ ko coiffé njaboot bi. léegi dama bëgg a xam problème bi ci entre les deux artistes la wala ñaari label yi. incha allah su dem naa la jox numéro Sidi. ak numéro Mandiaye. yor na ñaar yëpp. waaw kon danga allah kon leen woo fii. Hmm. nga laaj leen lool man. dogo ak respect bi ma dama xam en tant que yow euh, manager. Hmm. c'est-à-dire am nga ci benn part de responsabilité xam ni Sidi Diop ak Mandiaye ñoo am problème ci seen biir parce que dañoo bokk ay gel parce que dañoo mbëkkante woon kii saaga sa morom. parce que parce que parce que voilà xam nga tey man sama problème. Hmm. ak nit man man naa xam. Euh, en plus. Euh, yenn saa nit ñi dañuy am ay problème yoo xam ne nii vraiment ay détails la. Mhm. te ñoom mën nañ koo mën nañ ci développé. man li may wax nii dama ko xam parce que damay bañ lii wolof Njaay naan lii raam ci nag bi la jëm. te ba tey jii loolu mi ngi indi ay polémique tey dafa waral invitation bi waaw daf ko waral te loolu daf mi mi ngi indi ay polémique ba tey jii ay plainte di jug mhm. parce que tey ñu ngi nii dégg nañu démb nii mhm. dañu laa porte plainte yeah man dégg naa ñu ni dañu laa porte plainte porte nañu leen plainte deux fois bi njëkk mooy Sidi Diop moo karoon wàll kii nu mu tudd Mandiaye Seck deuxièmement bii nii ñu indiwaat ko ñu ne Sidi Diop euh, moo sàcc wayu jàmbur xaw ma Baye Baye Sall moo craqué yëfu jàmbur ci YouTube bi donc problème yooyu yëpp problème yooyu yëpp chaque jour muy am donc yii dinañ ci ñëw sax gis nga ay preuve yu nañ paraît-il am naa ko sax man yii ay preuve yu leer nañ la dinaa ci ñëwaat ci ma ñëw mm-hmm. plainte mm-hmm. am ci diggante Mandiaye Seck ak Sidi mm-hmm. Mandiaye ak la Mandiaye def plaintam Sidi def plaintam te kilifa kilifa Sidi muy ma préciser muy Matar jël na ci décision yi ci war a jël jël na ci décision yi mu ci war a jël mhm. mhm. mhm. man dinaa ci jël décision yi ma war a jël ok euh, loolu seen domaine la man concernant man liñ ma plainte xam tey man décidé tuma di tontu ci yenn détails yi. parce que yàlla su samay at tuutee. yàlla dimbali na ma kilifa laa ci sama domaine. te kilifa laa ci sama kër. te yàlla mooy def nit kilifa. d'accord mais léegi xam nga yow kilifa nga man ba man mii man mii ngay waxal man mii toog jàkkaarloo ak yow. xam naa sa euh, responsabilité yi nga àngu yëpp. xam naa sa maturité bi nekk ci yow xam naa sa kilifteef gi nekk ci yow. dama bëgg xam lan moo tax en tant que manager problème bi am depuis six mois sept mois ci ginnaaw da nga naan ataaya depuis six mois sept mois ci ginnaaw ba tey jugoo nga résoudre problème bi nga ni ñu attends ñun musique la ñuy xeexee waaye nekkuñu di xeex ak ay parole ak ay karaté fii ki kot kii ki mbëkk kii ki saaga kii ki nangu gel jàmbur ñun ay xale problème bi rek moo nekk ci réseaux sociaux bi ah. non dem nañ ba gis nañ benn jour xaw ma kii yor paaka. donc di karaté maintenant mooy mooy kii bi nu mu tudd. moom mooy gàddu ko sud bi. waaw loolu dañ ko gis ci réseaux sociaux bi. Hmm. donc mais nekkul suñu ay wax loo xamante ni ñun ñoo koy wax mais ci réseaux sociaux yi la ñu sukkandiku pour wax lii rek. ñun ay xale ci domaine bi ci milieu bi am nañ ay kilifa yu ñu coiffé hmm. mooy que kilifa musique bi am na. Hmm. ñoom mën nañu régler problème mu musique bi parce que problème musique bi bu leen ko def ci Sidi ak Mandiaye rek ah. non mi ngi partout du Sidi ak Mandiaye kese. du lool du ñoom rek. Mm-hmm. mi ngi Sidi Diop Wally Seck Mandiaye euh, Seck ak Sidi Diop Bambali Seck ak Sidi Diop Bambali Seck keneen ak donc. wër quoi non xam nga tey te Youssou Ndour ak Thione Seck bi ñu doon concurrencer ñoom ñaar. Mm. kii day génne bi bu subaa kee génne way bi loolu moo nekkoon coow li mm. du xam nga tey euh, yooyu xam nga dafa amul fula. Mm-hmm. parce que dafa am loo xam ne ni que vie nit bi la. même nit bi li mu nekk nekk artiste parfois day jékki-jékki wàcc ci vie am te yenn saa yi sénégalais il faut que ñu leen di baal. mais que dama bëgg mag yi. ñu ŋànk musique. ñu jug ñu jug. Mhm. ñu ñu ñu saytuwaat musique bi. Mhm. ñu xoolaat toogaay yi. wax ak pour que musique bi mën a dox tey ji ni mu ngi nii li ñuy xëccoo nii. Mhm. amul xaalis. yow yaa ci def. mais amul xaalis. parce que amu amatul rentabilité bi. Mhm. parce que tellement que niñ def musique. xeex waxante lu ñaaw ci internet. Mhm. après. léegi sa plainte ak kii. léegi nag loolu dinaa ci ñëw nii ci laa jëm. ci directement démb dañu gis the best. génn. Mhm. ba ërtal la ba wax ba joxañ la ba dut la baaram directement. nii boo arrêté wul sa yi ngay def dina demee neneen. the best génn ci réseaux sociaux yi wax. Euh, tey bu ñu la amee ci plateau bi pour waxtaan ak yow dañu am occasion pour nga leeralal ñu foofu lan mooy problème bi indi entre Siri Diop ak xale Waly Seck boobu xale boobu tudd Waly xaw ma. waaw voilà indi créé morceau yow Baye Sall ñu yaa dem ci chaîne YouTube bi bloqué morceau jàmbur. xam nga pour après Siri bu génnee way bi YouTube war a mën a rejeter directement da nga xaw saay saay ci suuf ok mais wax naa la. Mhm. fi ma bëgg jëm. Mhm. tontu mënu ma fa yeggale mais que dinaa def benn éclaircissement bu ndaw. artiste bu mu yor mu ànd ak coow the best. wallahi azim benn yoon laa ko gis benn yoon laa ko gis wax ak moom mhm. waxtaan ak moom euh. te wax bu gaaw mooy na nga def maa ngi fi fekk boobu maa ngi yoroon Sidi ñu ñëw ne studio am di am lu ñu doon déglu quoi mhm. biñ ko dégloo ba pare après ma génn dem xam kooku mënoo am ak moom jafe-jafe mhm. man bi ma The Best woowee téléphone. wallahi azim bi may woo imam laa ko tegoon. Hmm. waaw ndax yar bi mu duggee moom d'ailleurs enregistré na ma. da la enregistré wax na ko ci YouTube bi. bi may toog sama jabar moo ngi toog. Hmm. Ismaïla du ma bàyyi may fen hmm. damaa woo da dañu wax ba pare mu ma coupé ma woo Ismaïla na ko Ismaïla ki may waxal ni moom ma enregistré parce que sama nopp laa yor. bi mu ma enregistré ba pare envoyé na ma ko. bi ma ko envoyé ma déglu ko ma wax ko na ko. ah loolu déggoon naa ma ne ko vraiment teg te jox naa ko autorisation mu teg ko. teg enregistrement bi. dama lay man xam man. Ah. dama ne la dafa am loo xam ne dama ko mag. Mm-hmm. Mm-hmm. moom daf na lu yoon da ko tere. Mm. man du ko porter plainte. may naa ko mu dugal enregistrement bi fu ko neex pour que sénégalais xam ki kan enregistrement boobu koy tere. ma ma xaaral wax la man Baye Zall. Mm. jox naa autorisation The pour que mu jël enregistrement yi ñu doon waxee téléphone. bi may ñaan njekk mu dugal ko ci internet bi. lan la la wax. alors salaamaaleykum ci nuyoo bu sell man répondre ko ci nuyoo bu sell mu ne man la The Best ma ko na def. mu expliqué ma ne ma dafa amoon benn booy bu jëloon benn son jox la ko non non dafa amoon euh, benn clip bu Sidi buñ dugal tey ci chaîne YouTube bi. Mhm. bi ko dugalee ci chaîne YouTube bi ñu lancé ko droit d'auteur ñu supprimer vidéo bi ma ne ko ah mu ne ma waaw ma ne ko mu mu ne ma dafa am benn boy bu ñuy wax Prince Habib bi boy bi tur dëggam waali Dieng la tudd mais que turu artistam am Prince Habib bi la tudd. bi ma waxee loolu man ko waaw booyoo de joxoon nañ ma son bi pour ma promouvoir leen son bi. maanaam defal leen promotion parce que gars dañuy dégg tour bi yaakaar ne yow mën nga taal lu nekk. te yàlla mooy taal. mais da ngaa yor chaîne YouTube bu am doole moo tax. voilà alors. chaîne chaîne boobu Baye Entertainment la tudd. d'accord maa ngi sant Cheikh Sall. d'ailleurs maa ngi ànd ak moom moom mooy gestionnaire bu seen bi moom moom ma mayoon seen bi mooy gestionnaire bi actuellement. d'accord te moom moo ko mës a nekk. Mhm. ma ne ko nañ def parce que dama amoon ay projet ci musique Sénégal pour defoon benn investissement ci musique bi mais que la fin ne defatuma ko parce que jaru ko parce que li tax jaru ko mooy que man dama yar yar boo xam ne lu nit di xëccoo ma bàyyi ko ak yow li ma yor ñu bokk ko ma ak yow d'accord best bi mu ma waxee ñu wax wax bu yiw ma ne ko mu ne ma sama crédibilité man the best moo tax parce que amoon naa fi ay antécédents ak yooyu mm. man ma comprendre parce que c'est jeune buy daan dooleem mm-hmm. ma ne ko baax na dinaa woo booy bi léegi mu dindi ko. Mhm. parce que man maîtriser wu ma. gis nga tey moo ñëw jox la morceau bi. voilà tey li mu lay wax nii gis nga lii nii. Mhm. man maa la ko envoyé. lii la lii c' le 10 janvier 2021. le 10 janvier 2021. yaa ngi lii à à ku liir lii ak ñi maîtriser. YouTube eh, mhm. di nga xam ne ni que lii Baye Entertainment moo nekk nii adresse email ki moom compte bi. mooy Bamba Sepp. arobase nangam ak nangam. Bamba set arobase nangam nangam mooy kan. merci moom mooy ki moom con non xam nga Bamba. comme sëriñ bi. ko compte jumelle. dëkkul fenn ko d'accord alors euh, euh, lii nii ku ko gis. di nga comprendre ni que xam ne nii dafa am. loolu du ma mënuma ci wax parce que maîtriser wu ma ko wallaahi azim. léegi kan moo ko maîtriser ki ko maîtriser dina ci wax mais que dama am benn éclaircissement rek bi may def. Mhm. mooy que man. wallahi azim su fekkee ni ñun ci nii nii na arrêté lii ba ki ko mën a wax mu ñëw wax ci. d'accord léegi arrêté ba man dafa am benn affaire bu ma bëgg leeral. laay mhm. posé loolu laay tey bi ñu waxee noonu ba pare. man ma grande surprise ma maa ngi woon studio parce que Mañara fa doon génne singalam démb. Mhm. ma nekk ci nekk ci ñu woo ma te tey best bi ma wooyee dama ko recommandé ci ay Subaana Subaana dafa yor compte bi pour ma wax la li ma ne wax Subaana dafa yor compte bi ak mot de bi. Mhm. ki ñuy wax Vincent a travers Ibou Combaan laa ko xamee benn tubaab la boo xam ne moo yor fii pratiquement compte yu bëri di ko doxal mais tubaab bu maanu moom moo ko yor tamit di ko doxal. moo yor moo yor. waaw moo voilà. moo yor Vincent sama bos. yor seen bos. Vincent waay bu njëkk hmm. bi. mu dugal bi The di wax ni que quarante mille vues la am. Vincent moo ko dugal. confiance dama ko bàyyi ak de passe tout ça. Hmm. parce que Ibou Thiombane moo booleeg moom Cheikh la moom mooy sama bras droit sama homme de confiance ma gëm ko ci yaram ak ci jubam moom moo yor compte moom moo yaraat compte bi ñoom ñett ñooñ ñoom ñoo ko yor man maa ngi contrôler compte bi sama téléphone mhm. ci studio xaw ma lan mhm. te xamal lu ma ci contrôler mhm. xool ay commentaire lu bon ma dindi lu baax ma bàyyi fa parce que man lu baax lañ ma yore alors bi mu ma waxee loolu ñaan ma recommandé ko ci Ahmed Soubana woo Ahmed Soubana téléphone ne ko Ahmed munoo ma ne ko man maa ngi ñëw fii couvre-feu bi jot na mais dinaa génn maa ngi studio mbay si. mais que dinaa jóge fii ma ñëw Ouest Foire. pour que ZBS li mu may expliqué nii mu kii mu waxante Ahmed Soubana man li ñu waxante fekk ma fa. ñu waxante wax ju rafet. billaahi barke Cheikh na Ahmed Tidiane. waxante wax ju rafet. man ma naw ko. parce que dama gis ni que benn jeune la. bu bëgg gagné. man wàllum son. mais yow lan son bi xam na laa def moom atterrir ci man attends ma wax la yow lan moo tax nga jël son boobu dugal ko bàyyi ba Sidi Diop dugal rek. ok dama lay waxaat benn affaire. ni son bi def ba ñëw ci man. waa léegi Padros. Prince Habib bi ñuy wax nii. mooy booy bi woy woy bi. booy man xaw ma. man xaw ma ko. billaahi xam naa bi duñu ko may nag mais Baye bëgg nañu nga ñëw. ci waaw ok billaahi barke Baye Niass xaw ma. dafa xamante sama benn copain bu ñuy wax Is. muy liggéey ci Mandiaye ñoom ñëpp ñoo nekkandoon the best bi muy liggéey ci Mandiaye mu dem ba benn sax ñoom ñëpp liggéeyatuñu mais Is ñoo ngi liggéey maak moom Prince Habib bi jox son bi Is su joxee son bi Is maak Is ñoo ngi toog vocal ko naka jàppale ma ci lii pour que ñu promouvoir ko dégg naa yaag Baye Sall yéenay nekk jàpp ci is ne ma sama booy baa ngi nii booy bi jël photo yi fo ay ñetti photo am envoyé ko is envoyé ko son bi. Mhm. ma jël son bi transféré ko Cheikh ne ko dimbali ko. Mhm. pare fàtte naa ko. Mhm. ma toog quelque temps. ñu woo ma téléphone mais bi bi ngeen ko dugalee da ngeen a seen ay droit. non son bi man ki ki ko maîtriser lool. Mhm. xaaral ma jug mu ñëw wax ko parce que man mhm. ma ko. li ma nekk. man li may wax nii. Mhm. mooy que wax bu ñaaw. bi ñu wax. ni que dama dama dama traqué lii dama traqué lee. man li ma mën a wax. lenn kese la. mooy que ku moom Habib moo nekk nii. Euh, waaw je pense que moo nekk nii man dama lay wax ne la. li ñu a li ma gis booy bi. li gis naa ko ñëw na sama kër añee fa. ok te bi muy ñëw sama kër ñëwul sama kër directement de kër is da ñëw. Mhm. loolu bi coow li amee la. Mhm. mu ñëw sama kër. toog kër is ma ne gars yi kaa nañu ñu dem añ fa ceeb booy bi ñu ñibbi na dañ bëgg photo ak man. Mhm. photo ak man dugal ko seen statut bind ci wax su lu rafet ci man. ma capturé ko dugal ko sama statut punto ñaareel mbir mi. son bi.

comprendre nga li ma la. loolu moo ci dugal du raas. man waxuma loolu lu raas te du ma wax loolu man su ma bëggul dindi ki ma woo directement dama naan koy dindiw ma. Mhm. mais que crédibilité baisse encore une fois. xam lii problème bi man j'ai pas de problème ak Sidi. Mhm. j'ai pas de problème ak prince prince Habib bi apporté lu ma dara. Mhm. xale la buy dem nekk ci chemin. nekkul ci sa nekkul man aw ma label. label bi dama toog noonu. label bi labelu mbalak la mooy que su may rak samay kii mbalak la quoi. Mm. ok benn artiste la ñu yor muy Madiaye. léegi jox ma bii nag xale la. Mm. ñëw na man gëm bëgg ma ci benn fan. Mm-hmm. ak ci problème alors dinaa ko taxawu. Mm-hmm. ci situation bi. Mm-hmm. di ko taxawu boo jàmm am ci. Euh, euh, li li beneen domaine bi. tey damay jóg nii dem toog fee. parce que li tax toogal moo tax. dama bëgg rek. bañ a kole. parce que nee nañ coow li coow li yëpp yow waaw ok loolu best moo ko wax. waaw. du Sidi. Mhm. du Matar. Mhm. du Souleymane. parce que best moom mooy. Euh, euh, mooy directeur artistique bu directeur artistique bu non non man best xaw ma directeur kan la. Mhm. man. te wax dëgg yàlla du Matar moo may manqué respect noonu. du Sidi du Jules. mais menacé na non man menace yooyu noonu xam nga dëkk bi dafa am na la xam nga tey plainte jot nga ci plainte bi mën naa am lundi ñu dem def ko ok mhm. mais que plainte soo wee def nit est-ce que mhm. jar na ma rek na ma plainte nga mhm. man dëkk bi dafa am yoon te insha allahu su plainte boobu amee damay dëggaat gendarmerie génnaat dem ñibbi sama kër insha allah ah. billaahi barke Cheikh bi parce que man mënuma concevoir nga bëgg yàq nit nii gratuitement wax lu nekkul dëgg te mm-hmm. wallaahi ku ko joxoon cër laa mm-hmm. barke Cheikh na Ahmed Tidiane mm-hmm. joxoon naa cër trop ci wax menace bi mu def moo la non man menace bi méttiwu ma wax lu nekkul dëgg nit day wax lu nekkul nit da ngay wax dëgg quoi bàyyi parce que yow moom sorti bi mu def li mu ci wax lépp du ma wax lu mu wax lépp li mu wax concernant man billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa du dëgg te jox naa ko autorisation. appel yi ñuy waxante téléphone. ci devant tout le monde wax naa ko. na ko partagé génne ko ñëpp teg ñu déglu. ñu xool man ndax li may wax day waroo ak. li léegi moom damay danga ma koy joxal micro bi très rapidement mu wax ma ci contenu bi nga xamee am na ci diggante Sidi Diop ak euh, euh, ki nga xamee moom moo di. Prince Waly booy Waly Prince Habib bi xaw ma. si salaamaaleykum. Mhm, mhm. waa Sénégal waaw mën nga ñëw ni maa ngi nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp. très bien nuyu waa Pikine bi nga xamante ni fa laa man point boobu benn benn aperçu rek laa ciy wax benn mm-hmm. dama ci ciy éclaircir benn point bu ndaw. muy micro micro dama ciy éclaircir leen lu ndaw. Mm-hmm. muy son bi bàyyi moo ma ko jox ne ma kii benn boole bu tudd prince bi dafa soxla promotion. ban période yàgg na léegi mu mat un mois quelque. ne ma dafa soxla promotion te comme que bi gëñ nañ koo alimenté ndax moom chaîne am la bàyyi entertainment mhm. ne ma comme que gëñ nañ koo alimenté ndax mhm. amaguma ay produits yu ma ci def ndax maa ngi liggéey ak Mandiaye te am na yu bëri yoo xamante ni dafaguma dafaguma ko mhm. maa ngi koy liggéey nag pareegul léegi en attendant commencé di doxal chaîne bi dugal ci son bi ñu ñu doxal ko euh, bàyyi entertainment chaîne bi dañ koo protégé par content ID droit d'auteur dafa am content ID youtubeur yi may seetaan war nañ xam li may liggéey content ID mooy loo xamante ni boo xasee ba dugal sa son ci sa chaîne. keneen ku ko euh, replay rek. automatiquement YouTube da koy lance droit d'auteur mhm. soit nag day am deux options bi ci njëkk mooy soit droit d'auteur bi YouTube da koy jël. yow revenu yi ni mu la koy versé. Mm. wala deuxième option bi strict bi mooy YouTube day supprimer sa contenu directement. Mm, mm, comprendre nga. Mm-hmm. léegi son bi bi ñu ko dugalee. Mm-hmm. mu am un mois et quelque. Mm-hmm. yàgg na fàtte nañ ko euh, image bii nii ngeen di gis. lii la la image bii nii moom mooy bi nga xamee nii ñun euh, son bi dugg na automatiquement rek YouTube fermé ko. Euh, YouTube fermé clip bu Sidi bu nga xamante ni moom moo récent moom mooy euh, image bi nii léegi bi loolu amee man jour boobu noonu ay ah. euh, bi boo gisee bi moom mooy par la présente je retire ma réclamation pour mm-hmm. atteinte aux droits d'auteur def lien clip bu bi parce que Baye moom moo ne ma Cheikh Ndakari kii bi dafa dal ci clip bu bi mm-hmm. ba supprimer ko mm-hmm. te booy ñu may woo di ma di waxul sax booy maa ngi jéego dafa ne Ibou Thiombane ak mhm. ñeneen mhm. ñoo xaman ni ñu ngi koy woow di ko di ko ne mhm. suñu sañoon nga fexe ba régler problème bi ni mu mu mu mu saafarawu ñu lijjanti ko carrément mu fermé troisième bi la di léegi troisième bi moom mooy prouver que ni ñun bi nga xamante ni man job naa ci euh, euh, action boobu noonu ba YouTube dellowaat clip bi moom mooy troisième bi quatrième bi quatrième bi moom mooy chaîne ba nekk ni Baye Entertainment léegi cinquième bi moom mooy prouver bépp koo xamante ni tey son bi bi mu duggee ñi nga xamante ne dañ doon jëlaat clip bu Sidi bi di ko dugalaat mm-hmm. ak son wu Sidi Diop bi mm-hmm. ñëpp lu YouTube da leen lancer droit d'auteur automatiquement supprimer seen vidéo mm-hmm.